ndax moom mu ngi bawoo ci kaw zone Sodega wàcc ci boulevard bi nga xam mooy boulevard président Omar Bongo bi nga xam ni mooy yaatal diine l'islam ginnaaw bu mu doonee président jébbalu dugg ci l'islam ni man je en un mouride ni moom murit la bu jox sëñ Tuubaa ab xolam bu ko defee loolu nag su yàlla dogalee moom moo permettre karawaan bi seen euh, këyit yi nga xam ni ci la sëñ Fall bu sukkandiku ci ñaar téeméer nationalité yi mu ko may ba taxawal ONG bi ba ñu wootee ndaje mi ba mën a am tey loolu boo jur ñoo xam ne nag maire bi biñ koy fal sëñ bu so dafa ñaanoon ñooñu amoon nationalité ñu ñëw wootee si ci deuxième arrondissement bi bu ko defee kon ñoom moom ci boppam ci ak palam ak lépp nag communauté mouride bii ne fii cee bokk comme ñun ñii ñëpp bu ko defee tey sëñ Fallou ñëw taxaw fi sëñ Kosso Mbacké di fi door a jógee nag maire central bi ak maire deuxième arrondissement bi ci seen ndigal la ñu gravé panneau bi en marbre may nañ ñu ñoom suñ paree travaux yi ñu def ñu embellir yoon bi ba mu ba mu set fixé fi tableau bi fee buñ neexee def ci ay fleur ba pont bi central bi wax nee na nag maire moom dafa bokk ay vocation setal set ak setal te nee na loolu xam ne ko ci communauté Mouride bu ko defee ñoom nee na nañ fexe ba mbedd mi doon mbeddum exemple moo xam ni Libreville gépp dañuy xool ci mbedd waa ak set bu ko defee loolu mu doon loo xam dina mën a amal réew mi njëriñ kon daal sëñ Fallou ah. yow mi nga xam ni yàgg nga fii Gabon ñu fekkee ko ci fukki at ak nangam sëñ Fallou di dox ba wutalee kayit ba nommé ci conseil supérieur affaires islamiques fii ci suñ kanam. en tant que imam en tant que imam nga nekk ko fii ci Gabon. ma gis ni tamit fii ci Gabon fii nga toog ba samp fi kër yor fi ak njaboot ñu ànd ko ak yow ba nga dellu Touba tey jii loola muy dox. ba àddina bépp xam nañ la di la étiqueté ci Gabon sëñ Fall bu sa Tamba tey lan nga wax ci mbedd mi nga xam ne moom tudde sëñ Touba te panneau bi ci sa ginnaaw di ko firndeel maire Albert Oyam def ko waaw euh, alhamdulilahi rabbil alamin xanaa sant yàlla bu baax sëñ Cheikh Baye Fall sant yàlla bu baax a baax rek ci xéewal gu réy gii li nga wax moom kenn mënu cee teg lenn lu dul waaw lu dul rek euh, sant gi moom mooy jiitu sant suñu borom ci sëñ Touba mm-hmm. li sëñ Mountakha di wax rek yàlla fi yàgg lool mbàkki te ànd ak wér gi wax ne nañuy sant sëñ Tuubaa nañuy nañuy jaamu yàlla ngir di ko liggéeyal sëriñ bi waaye di liggéey sëñ di ko jaamoo yàlla di sant yàlla ci sëñ Tuubaa itam waaye di sant sëñ itam ci wan gi ñu wan yàlla ak boole gi ñu booleeg yàlla kon ak cant rek la lii nag lu rëy rëy la eh, bi ngay wax rek sama xel dafa daal di rot ci ay ci ci bayit woo xam ne dafa mel ne lii da koo findeelati mooy ataaba lil mamarra kal awtaani baaqin aadani min ashaytaani Eh, ak duudi wama lixtiire min jiiraani naaji yotun min jaalibil xusraani ak ca nooru daaren ijaal maqarri wa mamarri fi duyuur liya shawahida bi afdali xuyuur yooyu yëpp soo ko boolee day firndeen mbedd mii ak maanaam jëf ju rëy ji bu njëkk ba sëñ bi day wax ne suñ borom mi mi nga xam ne moom moo moo moo ma dàqal seytaane musal ma ci seytaane moo teeyal moo baaxal neexal sama samaw yoon maanaam samaw jaarukaay maanaam nga xam ne baatu mamar day rot lu bare bari ci xaside yi mm. mamar mooy fu ñuy fu muy jaar fu nit di jaar di dem mm. muy rii wala lu aw yoon wala lu mën a doon mm-hmm. mu ne yàlla moom mu nga xam ne moo ko moo teeyal sama yoon mooy ki ma musal ki seytaane mm-hmm. ci nooru daaneen yi ba mu ne yàlla maa ngi ñaan mm-hmm. fi may ne mm. mooy fi may sax ak yoon wi may jaar sama yoon ak samay kër na doon yoo xam ne dañ may seedeel bi afdali xuyur ci ngën ji yiw yi lii nag bokk na ci kon lii seedal Serigne Touba fii fi Libreville mhm. yiw yu rëy yiw yu màgg mhm. te seede googee ñun ñii dañ cee bokk ndax li nga wax léegi mhm. sëñ Fallou taxawaayam sëñ Fallou Bousso di suñu wayjur di suñu nekkoon suñu xarit ñuy siyaar si seexunaam yi nga xam ne tey ji li li arab yoo xam ne alwaladu sirru ab yi doom mooy maanaam doon mbootum baayam macha allah yal na ko yàlla dolli wér ak kattan taxawaay bi gën a yàgg lool waaye yéen ñi itam ay doomi Serigne Fallou yu ruux ngeen suñu seex waaw ah, ni man mii ak sëñ naa mii ni ñu sëñ Fallou juree noonu la leen jure yéen itam ci wàllu ruux loolu xam nañ ci lu bare bare bari ah, loolu nga wax keroog bi ma fi amee sama taaw muy 1900 defe naa 98 maa ngi doon xalaat sax léegi ci ci fan yi rek bànd yi muy lu yàgg yéen ñii keroog waa daayira xasaayid yéen a ñëw xëy jàng xasiida yu ama am solo hmm, lu jiitu sëñ Fallou ñëw di ko tudd ak ak maam Jaara kon loolu euh, man ma te tegtal la firnde la ci ne lu suñu ànd lu yàgg la te ànd bi yàlla rek ko lal ak ak itam maanaam Seexul Xadiim kon lii moom sant yàlla rek lañ ciy def te ñu xam ne daal mm. euh, maanaam waa waa réew mi mm. mu mu mu tàmbalee ci kaw ba ci suuf ba ci maire bi ko def mm. defal nañ Sëriñ Tuubaa loo xam ne ñun ñëpp lañ ko defal ndax Sëñ Tuubaa lépp lu ko waaye defal maanaam euh, Cheikh Mountakha mi ko fi nekkal moom moom nga ko defal waaye lislaam nga ko defal waaye taalibe yi nga ko defal kon ñun taalibe yi ñoo ko war a jéem a fay mënuñu koo fay sax waaye nañ nañ ko ñaanal ñaanal borom réew mi ñaanal itam autorité municipale yi nga xam ne ñoo ko taxawee ba ñoom itam yàlla wan leen ci jëf jurée ji ñu jëfal Sëñ Tuubaa ndam loo xam ne day gën a jëm kaw ndax Sëñ tubaa képp ku ko liggéeyal ku nekk faaw nga gis pay gi fii ci àddina ak ak dégg ci àllaaxira kon daal moom maanaam sentiment yi mbégte rek ak ak dégg nga rek nag tey jii ñun ñëpp dañoo fier doon ay murit mm-hmm. waaw ñun ñëpp tey fier nañ tey doon ay murit ci lii kon ci fii dégg fii ci Gabon nga xam ne fële Cheikhul Khadim liggéey la yàlla ba am lu mu am ñoo ngi sant yàlla bu baax di gërëm sëñ Mouhamed sëñ Mountakha di ñaan mu yàgg fit te wér lool kàddu yi sax doyoon na lool bi sëñ waxee rek Euh, kàddoom doy na danañ yóbbaale suñu kàddu waaye yëf Sëñ Tuubaa moom euh, géej la ku nekk mën na caa wax li may wax rek mooy euh, cant gi si mu taxaa la jiitu yaakaar na bi ñu demee Sénégal di laaj ndigal pour karawaan bi nag suñ fàllu mi ak suñ kalaam ak ñenn ci njaboot gi bi ñu demee ñoo ko annoncé woon mbedd bi xamal na ko maire bi dafa tuddee mbedd mi Serigne Touba mu am ci mbégte lool keroog daa mel ne waxtaanee waxtaan bu yaatu sax ngir bégte euh, laaj Serigne Fallou mi ay ay kàddu yu xaw a yaatu ba mu fa jógee nag sëñ bi ngir bég ci sëriñ tubaa ndax moom amul sago ci Serigne tubaa ndax bëgg ko ak fonk ko ak yaatal ko loo def ci Serigne Touba rek da gis ne ni mu ci réagiré mu bind benn bataaxal boo xam ne da ko jëmale ci maire bi pour sant ko gërëm ko ñaanal ko jox ko suñ fàllu suñ fàllu jox ma ko ma jox ko suñ kalaam mu envoyé ko nga yóbbu ko ci euh, mairie bi mbingoog waaw waaw waaw kon nag cant gi ñun dañoo ñëw rek xanaa di gën dëggal cant si mu taxaa waaye sëñ bi cant na ko ca Touba bind bataaxal envoyé ko ko defal ko murid yëpp kon nag loolu dañuy xam ne rek sëñ Touba euh, moo nekk nit koo xam ne xanaa lu ñu teggul suñu bët waaye lépp a ci kanam te léppay mujj dellu ci ay loxoom lii mbégte la moo xam ne euh, ñun ñëpp war nañu sant yàlla bu baax gën cee jàng gën a fonkaat nag sëñ Touba bu nekk fii ci Gabon mu nekk modèle boo xam ne ku la gis rek si yow sëñ nga xam ne ñu bari dana man a jaar ci yow sa comportement ak sa bëgg Sëñ Tuubaa pour mën a xëy même yoon pour tàbbiti asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Seex naa bi mujjee kàddu yi daal mooy hmm. sëñ Maam Thierno Mbacke ci tur sëñ Mountakha hmm. invité na maire bi ngir mu ñëw Touba macha Allah nee na ko wax hmm. équipe municipale ba ne Touba ñu bind lettre ci tur sëñ bi invité maire bi moom ak ñi muy àndal ñu ñëw Touba waaw kon loolu moom mooy information bi bawoo Touba jëm ci moom murid yi dëkk bi tamit am na ay xeet ay tableau yu ñu dajale ak yére lu ne ngir war koo jox maire bi mhm. comme feetu di sadul bi daa dugg ñoom seen programme xat moo tax ñoom mu am ci diggante yoo xam ne ñoo ko ji waaye dinañ fi des loolu ñu àggalee leen taxawaay bi moom euh, lenn rek la mooy Sëñ Fallou dafa amoon yéene ju rëy amoon vision ba taxoon ma bëggoon a jëmbatal Sëriñ Tuubaa fii ci Gabon loo xam ne fondement doon boo xam ne lu waaye ñëw rek teg ci kawam moo mën a jëm mën a jëm ci kanam mu wutoon benn ONC boo xam ne wutal na ko ay kayit ba mu am récépissé ba lépp génn wutal ko ay tànk yu dëgër ngir man liggéey bi liggéey Sëriñ Tuubaa fii ci Mayumba mu ma nekk liggéey boo xamante ne bi dana mën a jëm ci kanam te dara du ko mën a gàllankoor liggéey boobu nag am na ay projet projet yi nag bokk na ci naal jumaa Sëñ Tuubaa ju mag ca Mayomba fam sampoon ay bantam ñu koy sempi naa ko fii jumaa xew bi projet boobu bokk na ci sampal fa jumaa incha allah rabbi jumaa ju mag jumaa ju yoo xamante bi da nekk sembul ci mbooleem murid yi da nekk sembul ci gaboo gi ndax loolu lu war a mën nekk la ak daara Sëñ Tuubaa yoo xamante bi dana mën a yaatal njàngalub Sëñ tubaa fii ci gaboo ñu xam sëriñ bi xam seen diine ba ca gabonee sax dana mën a léegi jàng xam seen tubaa xam seen diine mu nekk liggéey boo xam ne liggéey bu yaatu yaatu la boo xam ne dañ cee woo mbooleem koo xam seen tubaa rek ñor na la euh, nga mën a participer ci liggéey boobu loolu mooy projet yi nga xam ne fas nañ ko yéen incha allah ànd ko ak taalibe yi ci njiital Sëriñ Seex Mbeng mi nga xam ne léegi mooy euh, jawriñ ji ànd ko ak mboolem taalibe yi yëf yi nekk yëpp fas yéene loolu mu sampoon mu liggéey Sëriñ Tuubaa ba ñëpp man mantee jariñu